di bëggee waa Diourbel lépp xam nga di féliciter mbër mi daan xam nga <coughs> di mbër mi daanu quoi eh, kontaan nañ bu baax si ñëw bi ñu fi ñëw te eh, merci beaucoup. Mm-hmm. drapeau leen ko dundee. ah nice ah nice kontaan si rek am ci contentement bu mag a mag a ah. eh, am ci contentement rek kontaan nañ ci trop trop trop. gis na Petit day imiter Modou ba mu ëpp la li mu nekk papaam la lim lim ko yar la. ah is na nekkul yeneen yeneen xool noonu rek. <laughs> ah man nii laa mel naturel quoi. waaw mm. mais tamit ça me plaisir quoi. ndax sama papa la. te aussi nit ku nit ku baax la xam nga ñaan naa yàlla mel ni moom ci lépp. ñu gis na yaa ci avance. ak brise de ah, mer waaw mais boobu le 14 juillet la am na bu jiitu boobu le 5 mai incha allah. le 5 mai le war a bëri di ñaan yàlla suturaal ma même ñaari ñaari combat yëpp yàlla même ci ndam incha allah. waaw ah, le 5 mai le 14 juillet. Ah, te le 14 moo tëgg beneen bi. ah jour combat Sa Thiès Eumeu Sène bi. beneen bi man maay bëri ah, loolu dara. loolu dara. Hmm? ñaan rek xam nga yàlla may ma ci ndam ñaari combat yëpp incha allah. foo maa ngi ci kaw maa ngi ci ñu jóge koor maa ngi ci entraînement yi ah di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla ñu yàlla nangu suñu koor yaa bi bien sûr maa ngi doon wor hmm. la ma may tere wor hmm? maa jël dañu gis mbër yu bëri bu ñu bu ñu dëgmalee combat. bien man bokkuma ak man bokkuma ak mbër ma amee combat su ma amul combat lépp koor moom dama koy teg ko saa waay làmb c'est autre chose quoi. waaw Petit Lo ak lutte simple ñu gis ne bu lutte avec frappe da nga ciy bëri mais lutte simple bi tamit su tëggee dañu gis Petit Lo takk ngembam dugg ci àll bi wala mu dem terrain gaal gi Grand Yoff di mbëkkante ak gars yi. ah laa man bëri moom war ko mbër laa. te bëre moom war mais eh, man bëre kese moom war bëre kese man defuma dara su ma xëyee entraînement laay dem eh, su ma ñibbisee tëdd dalu ngoon ma demaat entraînement xëyu ma dew ma fenn entraînement mooy sama liggéey. Eh, kon du ma entraîné waaw ah, mais bokkul ndax bii da nga koy préparé lu yàgg lutte simple mun nga toog bañ na suba la sax nga jël sa licence dem bëre na fekk nga nga nekk ci entraînement rek bokkul quoi bokkul te bee da dem pour compétition la rek presque waaw man lutte simple compétition laa laa quoi bëre rek moom war. kàddu gu mujj gi ah di sandaat yàlla bu baax xam di bëggee waat waa Diourbel yëpp yëpp yëpp xam nga di bëggee waa Diourbel yëpp waaw ah, di ñaan yàlla defal ñu sutura bu baax a baax eh, di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sax si yoon jaajëf